lan mooy problème bi. waa ñun dafa am ku ñu deux millions trois ci 000 daf ko gaare woon un ouvrier. Euh, léegi dafa gagné confiance am mu koy raxasal tout le temps auto moment bi muy la ko ñëw bi pour raxas auto bi après vingt minutes après monsieur génn di jàpp gis ni auto bi fermé wul ñëw xool sacoche bi mu

day liggéey ci chantier bi en même temps même da leen raxasal seen. gars yi dañ ko def confiance moo tax ñu féetale ko côté boobu. Mhm. mais il était venu en tant que dañ koy pointé ouvrier yi quoi. voilà ok donte donte liggéeyul ci ouvrier yi oto yi lay raxas quoi. voilà. Mhm. parce que maanaam moom daf leen woon comportement boobu. bu baax que ni dafa yaru dafa. disponible et tout. d' accord euh, instant bi nga xamee ne maanaam mu ngi mu ngi jël na xaalis bi xaalis bi fan la nekkoon. mi ngi woon ci suufu chaise conducteur bi. sac bi na parce que dafa am lu mu jëndi ak xaalis boobu moo taxoon mu àndaale ko jour boobu teg ko ci suufu conducteur bi chaise conducteur bi mais daf ko fàtte bi mu koy jox caabi bi souvent da daan génnee buñ koy raxasal ay oto mais jour boobu xam naa ak lim ko fekk muy añ xelam génn ci. d'accord euh, maanaam lu may laaj mooy maanaam yéen kan moo wax ni leen waa doon raxas moom la joxoon caabi bi déjà ba pare bi mu ñëwee gisuñu waa ji dafa daw. gaañ bi dafa daw. dafa daw ba léegi nii kenn gisu ko. te biñ demee automatiquement après vingt minutes këram paa bi nee dafa jël sac cadeau am daw genre ñoom dañoo egsi rek ñu ne leen ñu mi ngi noonu di daw. d'accord léegi yéen est que est que def ngeen euh, ay recherche ba xam moom euh, maanaam ba xam mi ngi ci dëkk bi wala. Euh, bon dem nañ porté plainte euh, police euh, ñu waron def avons bi géolocalisation bi parce que nous sommes en ligne le dimanche à 6 h 51 en ligne. dimanche bi passé. dimanche bële. Mhm. normalement peut-être que nous avons localisation bi dinañ Nous ne mi ngi ci mi ngi ci dëkk bi wala génn na. la moo tax localisation. bon loolu mbiru xam nga police la euh, après on a adjudant bi mais plus que téléphone bi numéro qui ki watul fonctionner pas la peine faire euh, la localisation parce que vous ko non non jël bi net bi ensuite benen wo bi automatiquement boîte vocale d'accord accord da ngeen ko déclarer ci frontière puisque nee ngeen nee nga sénégalais gambien la gambien la am nañ pièce am yépp am nañ ay photom touram turu grand frère am yépp est ce que jëm ngeen contacter famille Gambie waa euh, man personnellement wax naa ak grand frère am lan ngeen waxante ak la mais nee na gisu ko li mu def daal moom jaaxal na ko parce que ñoom duñu famille buy jël famille bu jub lañ bu baax et tout mu ne moom même buñ ko gisee naa ko informé mais bon grand frère bi ni muy waxee comme pour ñu jéggal ko daal parce que mi ngi naan ñun ay villageois lañu ay baykat lañu amuñu dara genre kuy comme kuy wax pour ñu baal ko. mi ngi dafay victimiser wu te gisagul frère voilà exactement mi ngi victimiser wu. Mhm. te gisagul frère bi voilà te frère bi am na fa grand frère bi nee na ma am na jabar am ñaari doom. ma ne ko sûrement moom voilà. gaan bi jël xaalis bi non non grand frère bi mhm. néna euh, petit frère am am jabar am ñaari dom, mhm. voilà maneko, ko mënul baña a ak jabaram wala yaayam sûrement am ngeen information bi. kan mo am jabar ak ñaari dom ki jël khalis. ki jël xaalis bi. yéen li nekk ak yéen yépp xamone ngeen ne am jabar ak ay dom bala. bon xam nga loolu duñ ci informé wu trop mhm. on a juste besoin de ces pièces ak yooyu. ok léegi bi ñu leen waxee ne bi bi leen mag yi waxee ne leen moom am na jabar ak ñaari doom est-ce que yéen jéem ngeen dem Gàmbi. non non ñu dem Gàmbi. Mhm. lu ngeen di xaar pour jéem a dem Gàmbi. <laughs> alors ah, lii nii mosuñu dal comprendre uñ en plus ñu ngi doon déglu police yan kii information la ñuy jox. Eh, yan information la leen police jox. instant bi boo leen woowee sax dañ naan la amaguñ ci lu leer. ñoom lan lañ lan lan lañ ci defagum maanaam dañoo alerter frontière yëpp. waaw alerter nañ frontière yëpp. Mhm. kon waa ji mën nañ am njortu ne génnagul Sénégal. bu génn waa bu fekkee génnul avant ñoom ñuy alerte frontière yi parce que nee nañ ma bu génnee fu mu mën a jaar ci frontière yi dañ ko jàpp. Mhm. parce que parce que day yore pièce d'identité. dañuy am nañ photoom ak lépp. ñoom am nañ photo waaye envoyé naa leen photo yeeg yépp. Mhm. yéen waa yan document ngeen am si moom. am nañu photocopie pièce d'identité am nañ turam am nañ ay photos. Mhm. waaj bu la dee dégg nii lan nga koy wax yow. que mu delloo xaalisu jàmbur parce que lii nii dem na ci loxo yoon te mën na yàq àddunaam puisque jeune la am na avenir devant lui bu fekkee andi na xaalis bi euh, bon xam naa ni sax dépensé na ci. mais na indi li ci des delloo ko boroom ñu retirer plainte bi en sûr que ni yoon dina doxal ki wam mais peine bi gën a gën a wàññeeku moo gën. d'accord waa ji nan la mel. Euh, dafa xees xaw a tuuti nii. dafa xees xaw tuuti nii. Mm-hmm. dafa njool wala dafa gàtt. dafa gàtt. dafa gàtt. Mm-hmm. environ ay ñaata at yam. Euh, quatre-vingt-dix la juddu. 90 la judd. février mhm. 90 wax ji seet na amul benn mandarga boo xamante ne boo ko xoolee automatiquement dinañ ne ndaw si de kii doon wax. lan nga mën a identifier ci moom. Euh, boo ne koo jàkk lan nga mën a identifier ci moom comme man exemple suma ma ko gisoon naka laay xamee ne ki ngay wax la. dafa am taay taay bu gàtt góor bu tuuti xees nopp yi xaw a taxaw. nopp yi dafa taxaw d'accord ma def sa kàddu gu mujj laal la. bon ci accueil beeg yëpp parce que jaaxle woon naa au fait fan nañu nan lay def ba ñëpp yëg ko parce que mënuma ko woon dugal ci réseaux sociaux yi ndax xaw woon exactement nan lañ koy dugalee ci réseaux sociaux yi pour ñëpp jot ci déglu naa police nag une semaine avant may réagir. d' accord yéen daal seen xaalis rek ngeen soxla. voilà deux millions trois cent. deux millions trois cent.